nu la lu koy waral yal na nu mooy yal na nu dund nun te baax te dox bu wér yegg bu baax te gas bu wér bënn bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ku ñàkkit saña ñaan xanaa ku baaxulit di ñaan xanaa ku suufe di ñaan ndax ñu yërëm ko far ko may saa ñàkk gi du teema ñaan samag bonit du teema ñaan lu mën a maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida wali yahab salaamatan wa afiya wa jal xayaati xayaata safiya mbokki jëliti mbokki taalibe yi soxna jaara Bichri moo leen di nuyu di jiital ci bi beeg ziar bi cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir xalifatu amdil muridiya noonu la ñuy ziare njabootug maam cheikh Ibrahima Fall gépp ah, tey nag dañ leen indil li nga xamante ni moom la ñuy waaj muy émission bu mag boo xamante ni ñi ngi sàkk mbokki ñu bàyyi ko xel mi ngi am fii ci Bichri TV ñu tuddee ko jotaay yi maanaam ñu waxtaan jigéen ak diine fas yéene cee waxtaan jigéen ak lislaam wax ci jigéen tayit ak société bi ak ñàngalem sëriñ bi ci soxna yi seen comportement ak naka la ñu war a mel ñu fas yéene ceeg ànd ak ay ndaanaan yoo xamante ni ay boroomi xam-xam lay doon noonu lañ ciy ànd ak soxna yi tamit ñu fas yéene ko amal fii ci Bichri TV tous les dimanches après midi ci la émission bi di daw kon nag ñoo ngi ciy sàkk mbokki taalibe yépp ñu waajal ko rawatina nag soxna yi ndax dinañ xamle li nga xamante ni mooy dayob jigéen ci lislaam dinañ xamale tey dayub jigéen ci société bi ndax ku ne xam na ni jigéen nag mooy madrasat mooy école te bu baaxee rek lépp dafay baax kon nag na ngeen ko xaar léegi ci ay fan yu néew fii ci Bichri TV ñoo ngi sàkk ñëpp tey it ñu teew ci di ñaan tawfiix ak taysiir barke ma faatihul Bichri bënnu la lu koy waral yal na nu mooy yal na nu dund nun te baax te dox bu wér yegg bu baax te gas bu wér bënn bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ku ñàkkit sañ ñaan xanaa ku baaxulit di ñaan xanaa ku suufe it di ñaan ndax ñu yërëm ko far ko may saa ñàkk gi du teema ñaan samak bonit du teema ñaan lu mën a maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay